Euh, ay ca lamb ja daal dinay jeex tàkk tàkk tàkk jamono bi ñu toll nii nag en direct fa nga xam ne rek moom moo di géejawaay euh, la ñuy daal di dem fekk fa nag ki nga xam ne rek moom moo di Sa bala Balla Gaye 2 moom mi nga xam ne rek euh, tey daal dinay yëngal fi nga xam ne rek moom moo di sad gannaaw jël bi nga xam ne rek bu leer nañ la bu mu jot amal ci diggante ak ki nga xam ne rek moom moo di Tapha Tine bi nga xam ne rek ñu bare bari jàpp nañ ko ne moo ko ëpp lii di gabar yi gannaaw gi nag géejawaay jamono bi ñu toll ma ngay jax te tamit di yëngu di xumb lool ñu fas yéene daal di ànd ak yéen ci lépp loo xam ne rek lu gën a fës la ci li nga xam ne rek moo di combat bi nga xam ne rek couronne gaynde gi ana ñi doon wax gaynde gi jamono bi ñu toll ni jeexal na tàkk ndaxte ay atam dafa daal di weesu gannaaw 2010 2011 2012 jàpp 2013 jaloore ji nga xam ne def na ko ci làmb ji tax ñu bare bare mii noon ko si ràññee woon ko si wante ay weer rek wala boog ay at mu ne koo xam ne dafa jeexal mbir yi mel daal dina koy fayeeku niki tey ci lamb ji nga xam ne sénégalais yu bare bari ñu ngi ko doon xaar saa su nekk jamono bu nekk niki tey gi nag li nga xam ne rek waa CNG daal di woon nañ koy chartante ak mel ne ci ay xibaar jot ko daal di respecté ndaxte kat ni lamb ji teele ni gëj nañoo gis lamb daal di am li ni mel te li kat mën naa daal di jur li nga xam ne rek moom moo di jàmm gannaaw nag jàmm ji nga xam ne moo gën jaamarloo ki nga xam ne rek moom moo di Baye Ndiaye yëkkati woon ay kàddoom jamono bi ñu toll nii nag xanaa dina daal di noppi gannaaw ba mu tegee combat bi nga xam ne rek bu mag a mag la te la daal di wéy fële nga xam ne rek moom moo di kër Double Less ci ki nga xam ne moom moo di Balla Gaye 2 bi nga xam ne rek daal nay déggaat wi maanaam retour la daal defaat dikkaat ci fi nga xam ne rek moom moo di biir lamb ji combat yi nga xam ne rek ñoom ñoo des ci kanam ana kan la war a daal di jàkkaarlool moom mii di gaynde ak waay gi jamono bi ñu toll ni gannaaw ay défaite yoo xam ne rek ci la jóge woon bi la yoon daal dinay bégloowaat xam ne ñoom ñoo supporter am dina di jaajëfal bu baax a baax.